yoona saar fukk ak bu leen jàq gëm leen yàlla te gëm ma am na néeg yu bari ca sama kër baay bu dul woon noonu ma wax leen ko ndaxte maa ngi dem defara leen fa ngeen di dëkk te su ma leen defaralee barab boobu ba noppi dinaa dellusi yóbbaale leen ba fu ma nekk ngeen nekk fa yéen itam te fa ma jëm xam ngeen yoon wi tomaa ko borom bi xamuñu fa nga jëm kon nan lañuy mën a xame yoon wi yéesu ne ko man maay yoon wi maay dëgg te dundit man la kenn du ñëw ci baay bi te jaarul ci man ndegam xam ngeen ma dingeen xam itam sama baay lu weesu tey xam ngeen ko te gis ngeen ko filip ne ko borom bi wonnu baay bi loolu doy nanu yéesu tontu ko ne ni ma yàggeeg yéen te ba tey filip xamuloo ma ku ma gis gis nga baay bi kon nag nan ngay mën a laaje naan won nu baay bi xamuloo ni maa ngi nekk ci baay bi te baay baa ngi ci man kàddu yi ma leen di wax jógewuñu ci man waaye baay bi nekk ci man mooy matal ay jëfam gëmleen li ma leen wax ne maa ngi ci baay bi te baay baa ngi ci man walla boog gëmleen ndax jëf yi ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax képp ku ma gëm dina def moom itam jëf yi may def dina def sax yu gën a màgg ndaxte maa ngi dem ci baay bi te it lu ngeen ñaan ci sama tur dinaa ko def ngir doom ji feeñal ndamu baay bi lu ngeen ñaan ci sama tur maa koy def bu ngeen ma bëggee dingeen topp sama ndigal te dinaa ñaan baay bi mu jox leen beneen dimbalikat buy nekk ak yéen ba abadan kooku mooy xelu yàlla mi yor dëgg àddina du ko mën a nangu ndaxte gisu ko te xamu ko yéen xam ngeen ko ndaxte mi ngi dëkk ak yéen te dina nekk ci yéen duma leen bàyyi ngeen weet dinaa dellusi ci yéen des na tuuti ci kanam àddina duma gisati waaye yéen dingeen ma gis dinaa dund moo tax yéen itam di ngeen dund bu keroogee dingeen xam nag ne nekk naa ci sama baay yéen it nekk ngeen ci man te maa ngi nekk ci yéen ki ma bëgg mooy ki nangu samay ndigal te di ko topp ku ma bëgg baay bi bëgg la te man dinaa la bëgg di la feeñu yuda du yuda iskariyode beneen la woon ne ko borom bi lu xew ba nga nar noo feeñu nun rekk te doo feeñu àddina sépp yéesu tontu ko ne ku ma bëgg dina sàmm sama kàddu sama baay dina ko bëgg te nun dinañu ñëw ci moom te dëkk ci moom ku ma bëggul doo sàmm sama kàddu li may wax nag jógewul ci man waaye mi ngi soqi ko ci ki ma yónni lii dama leen koy wax ci bi may nekk ak yéen waaye dimbalikat bi leen baay bi di yónnee ci sama tur muy xelam mu sell di leen jàngal lépp di leen fàttali li ma leen waxoon lépp jàmm laa leen bàyyeel sama jàmm laa leen jox jàmm ju àddina mënula joxe bu leen jàq bu leen tiit dégg ngeen li ma leen wax dinaa dem waaye dinaa dellusi ci yéen bu ngeen ma bëggoon dingeen bég ci li may dem ca baay ba ndaxte baay bee ma gën a màgg wax naa leen ko nag léegi balaa looloo ñëw ngir bu waxtu wa agsee ngeen gëm lu weesu tey duma amati jot waxtaan ak yéen ndaxte malaaka mu bon mi jiite àddina saa ngi ñëw kooku mënuluma dara waaye àddina si war naa xam ne bëgg naa baay bi te ni ma ko baay bi sante ni laay jëfe jógleen ñu dem